suñ fa jógee dañuy dem fële nga xamante ni maanaam Turquie fekk ji fa ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye ginnaaw wàllu diplomatie ba mu demee foofa ca Arabie Saoudite kooku di Bassirou Diomaye Faye di président de la République du Sénégal jamono ji mi ngi foofa ca Turquie jëmale ko daal ci ay projet yoo xamante ni dafa soxal wàllu coopération diggante li nga xamante ni mooy réewu Turquie ak réewu Sénégal ginnaaw nag ci invitation ki nga xamante ni le président turc du Erdogan Bassirou Diomaye Faye nag awam la àndal ginnaaw nag séjour bi nga xamanteni nopi nako fofu ci Arabie Saoudite moom mi di jomay fay ginnaw lolu egsi na foofa ca Turquie manam dembu ci alxames bi jëmale ko dal ci benn visite officielle bo xamanteni dafa dox ci diggante ñaari bëss yo xamanteni ni muy invitation ki nga xamanteni moy son excellence le président Recep Tayyip Erdogan ginnaw dal suñu source bi ñu xam ne loolu muy déplacement bo xamanteni ni jomay fay daf ko inscrire ci benn cadre bo xamanteni dañu war renforcer lepp lo xamanteni moy ay liens d'amitié jëmale ko dal ci suñu coopération diggante réewu Sénégal ak Turquie jëmale ko dal ci ay projets yo xamanteni ñun ñoko ko bokk mu viser promouvoir le plus développement économique jaar la ko ci sécurité prospère ki di Bassirou Diomaye Faye agsi na démb foofu alxamis ci Turquie dina fa dal visite ñaari fan yo xamanteni ki di Erdogan di président turc moko invité ñu jëmale ko dal ci renforcer le plus xamanteni ni ay projet ñoko bokk ñi promouvoir li di développement économique sécurité ak prospérité.